seen revue de presse El Hadji Ahmed Aïdara bismillah boo leen feebaree dee ah. dee leen tere dem hôpital laa wax professeur Moussa Sey ci la solo yéene kaay waaw nee na ñi xam ne kon dañoo feebar ci corona jëlee te mujj dee ah. téeméer boo jël juróom fukk ak juróom yëpp dañoo yéex a dem hôpital la wax di quatre-vingt-cinq dama ne la juróom ñett ñu bees daal dina ñuy deewaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laa ilaaha illallah dama ne la ñeen fukk ak juróom ñett xam ne kon ña nga sowe taas allahu akbar ginnaaw ndakaaru njaay jël jóob waaw benn dëkk ñaari garde Thiès de ak ñaar fukk a juróom dañoo corona boog sobli ne léegi nag téeméer ak fanweer ak ñett dee ci ay doomu a ñoo dee inna lillahi inna ilayhi rajiun dama ne leen lu tegee juróom fukk kon fi ñu ngi sowe taas université dañ koy ubbi ministre enseignement supérieur ci tribune yéene kaay Vox Populi nee waaw benn fan ci weeru septembre jaa ngay ray waaw suñu kilifa yi de da ngay saagante seenu biir allahu akbar la ilaha illallah dama ne la république ba yàq yàqu na tribune yéene kaa ne Moustapha Cissé Lo de waaw daal dinay xotti nag war mu Macky Sall ak waa këram déedéet kay ah kay boog sob li ne moo taxit président Macky Sall de waaw daal dinay yóbbu nag Moustapha Cissé Lo seras gars yi dañ koy rey de tribune yéene may ma yeggali may dama ne ci fan yii di ñëw de waaw coowal Moustapha Cissé Lo yaa xam mbay ak Farba waaw la ñuy bëgg nag di kon ci grand place yi de mardi tali waaw moo taxit Moustapha Cissé Lo daal banqaas yi nga xam ne fa la ñuy nasee ko notti de ci biir APR léegi daal Moustapha Cissé la simple député la simple militant la yéene kaa gi ne lépp nag ka ngi jollee de xam ne ay saaga yu doy waar yu dox nag ci diggante responsable APR yooyee Cissé la yaa xam ak Farba ay audio yoo xam ne de waaw saaga yu doy waar yu ñuy jagleelee kon Farba Ngom mi le ak yaa xam mbay ndaxte ñoom ñaar ñooñee ah dañoo tuumal Moustapha Cissé la mi le ne daa sàcc ne kon ab xaalis ci marché bu am doole wàllum gerte dëgg la ah, waaw enquête yéene kaa ne en tout cas république bi de waaw gars yi nañ ko de dama ne la ca suuf te ay saagante yu ñaaw ay tuumaalante yoo xam ni ko ñu doy waar doy waar maam lees Camara ah nee président de la république ci boppam de moom lañ na waa nga na mbedd ma moom lañ exposé dëgg la donc soob moo tax it Macky Sall daal di ne sàkku na ci commission de discipline o APR ñu daal di réunion kon ci nu mu gën a gaawee daar daar ngir jël ay dogal si solo nag laa la wax maar day taali exclusif yéene kaa ne affaire te waaw saaga yi ñaaw ay mbirum jaam jabaru jàmbur saga sàngara xet dof ak yeneen ak yeneen sax maanaam ay jokkalante yoo xam ni kon ay kaddu yu mbirum sauvage yëfu àll rek lañ fa def de ginnaaw nag ba leen Macky Sall joxee ñu lekk ba rek moom yaa xam may mi lé ak Farba ak Cissé Lo waaw seen yëg seen de moo leen yóbbee lii tey lii tax ba grand serigne de Dakar Abdoulaye Matar Diop waaw nee na la ñu war a yëkkati nag daal di koy teglee lée de Seneweb waaw nee na justice bi kay fi mu nekk am na liggéey justice xanaa mu fata ay noppam de waaye moom justice day am na liggéey de critique yéene kaa ne waaye yow ana monsieur le procureur Serigne Bassirou Gueye yéene kaa ngi ne Macky kay waaw bu dee nag dafa am lu ko tënk ci wàllum politique diggante ma Moustapha Cissé Lo waaw loolee de tënkul procureur de la République Serigne Bassirou Gueye dara tënku ko wax yaa xam mbay ci Walf Fadjri waaw nee na de la ni mu demee dafa mel ni war mawu man yaa xam parce que Moustapha Cissé Lo mi ne bañ ko waree tëj du tey de léegi nag moom mooy wut luñ ko tegee loxo yaa xamee wax ci Walf Fadjri de laast en tout cas askan de am nañ lu leen miti lool sous le choc dëgg la ay sulli wantey mbóot weerante saagante ca kaw nguur ga nag laa la wax ay meeru ñu ngi de yónnee na kalaame Moustapha Cissé Lo ca tribunal ba de parce que Moustapha Cissé Lo daa tuumaal jabaru ay meeru ñu ngi mi le ne daa laal ay tonu gerte ñu ngi tam dafa bëgg a setal deru jabaram de 24 heures yéene kaa yëngal gësëm lii di république bi direct news de waaye Moustapha Cissé Lo mi ne ah, dañ koo tooñ wala moo def looloo jar a laaj lan moo tax ñu xaar ba tey ji la doog a génnee audio Cissé Lo yi la Moustapha Cissé Lo de keroog ba mu waxee ca koppar gi xam ne moom lañ jagleel ministre de la santé ba léegi ni lée la gaa yi gaawal mbir lu tax kàddu yi Moustapha Cissé yi ci ab cadre privé la ko amale xam ne warul woon a génn ci mbedd xanaa xamoo leen ne Moustapha Cissé Lo wax dañ ko enregistré siiwal ay vidéo ci loo xam ne kon jaarul yoon Mañi Njaay nekkoon fi ministre kon ci sursa waaw nee mënuñoo tëj Assane Diouf fi kaso bi ba pare daal di fay nag Moustapha Cissé Lo mi lé muy doxi soxlaam laa la wax Babacar Justin Njaay ci direct news waaw nee na ci boppam kon ñoo namm nag homme d'état ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb waaye fasu àll tey yilee nekk ci état bi waaw final nañ de fitna gi ci mbay mi de enquête a siiw googe parce que opérateur yi de mafia lañ cay def laa la wax Dakar Times coowal suufuk sédiment gale ak ndengaleer waaw tey ma wax leen ca la ca am de parce que dossier ndengaleer boobe génn na ca ëttu dëkk ba yàgg na ma nga ca teere santas ba kàcc ak wàllu manipulation laa la wax parce que xam nga coowal Babacar Ngom sédiment mi ne lan moo tax mu jaaxal ñu baree bari waaw lan moo tax ba ñuy yàq deram noone ah daal di fii bàyyi français yi du total ak waxtaan ba ci libanais yi nga xam ni kon ci suuf si la toog te askan wa yeewoo te ndengaleer googee waaw ña ngay négocier de ak Sedima Assane Sylla président MPS ci tribune yéene kaay waaw nee na la ñu jox Babacar Ngom Sedima de dama ne la bokkul ca ndengaleer diggante ndengaleer ak jilaax juróom ñaar ñu bëgg di bay foofee lu tolloo juróom-ñeenti weer lii la Sénégal so soxla lu tolloog ñaari junni ak juróomi téeméer ci ay doomu adama fas yéene dëkk ca gox yoo di liggéey ca projet ba lii la Sénégal soxla le quotidien yéene kaay ne armée i kër 24 heures yéene kaay ne waa justice day ña ngay attaqué la di dal ah kay wàllum na nga xam ni kon nañu koo rey nag ca buntu kër Eumeu Sène enquête ba meurtre la de gars dañ ko rey de l'observateur ne Eumeu Sène ak ay lieutenant te dugg nañ niiru ba de ci deewu Ibrahima Touré mi le maa la ko wax sur quotidien inondation yi te diggante 2000 ba fii may wax ak yow waaw ay milliards milliards lañ ca dugal laa la wax diggante 2008 ak léegi rek 70 milliards <laughs> ndaw milliards yu bari waaye nag milliards yi duñu bare bare bare bare bare bare bare bare ba gën a bari suñu milliards pétrole yi kenn mënu koo fàtte parce que suul gaz du ko xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la jërë ngeen jëf borom fetal gi Moustapha Cissé Lo El Pistolero ay balle perdue moo xëy di jógee ci yéen ñu ne ci moom honorable député Moustapha Cissé la jógee di ci daggal ay saagay nday Farba Ngom ak Yakham Mbaye mi ñu ne dañu ko tuumal ne moom Moustapha Cissé Lo dafa jalgati jiwu gerte waroon dem ci baykat yi l'observateur nee nañu loolu andi coow li yéen bi tagal ñu ci ne jéem nañoo jokkoo moom Moustapha Cissé Lo ngir leeral yëf yi jéem nañu ba sonn waaye ba xamal leen saaga yu ñaaw yooyu ñuy dégg jógewul ci bàyyam Moustapha Cissé ndax bàyyam moom ak loolee leneen li ñuy wax ne Moustapha Cissé dafay démissionné ci instance yu parti bi di APR des di doon militant simple l'observateur ne nañu loolee te doom ja weddi ko ba mu set wecc journal bi tegal ñu ci ne waaye ak lu ci mën di xew porte parole national bu APR di Seydou Gueye xamle na ne secrétariat exécutif national bu parti bi di APR te président Macky Sall jiite ko sant na commission de discipline parti bi ñu lijjanti mbiri Moustapha ko ci Afrique sax ci àdduna bi yëpp libération nañu waa Sénégal ñoo waaru ci wax ju ñaaw jooje ñuy dégg ci diggante kilifa yu mag ci état bi journal bi dem bay méngale APR ak parti boo xam ne fa la wax ju ñaaw sampe la Sénégal nañu ñett ñi mu di Farba Ngom Yakham bay ak Moustapha Cissé Lo li ñu dëkke mu di weranteeka weeranteeka wërante ak di xaxaranteeka daggalante saagay ndey soog bu rëy la def ci askanu Sénégal anki dina kay gis ne jëf ju ni mel du askan wi rekk ñoo ci amee ñëgg-ñëgg yi ci boppam amu ci lu ko neex journaliste bi di Mame Less Camara di ñuy wax

tey ñu nekk ci commission de discipline bu APR bi Abdoulaye Badji la Abdoulaye Daouda Diallo Benoît Samb Abdou Mbow Omar Gueye Awa Gueye ak ministre d'État mbay Ndiaye mi wopp si la ne bu ñu jiitalee dëgg ci yëf yi ak réeroo du ci am te réeroo gi ci jotaam dina am saafara mu ne dëgg gi mënut a weesu service ci mel ne cadastre ak urbanisme génn xamal nit ñi ne Pape Babacar Ngom Sedima suuf samu yor ca Ndengleer sàcc ko wuruju ko njublangu ko mi ngi ki kayit yu wér te wóor yoone na li mu am ci yoon la ko amee Assane Sylla ne te Pape li muy naa la ka nësër bu sottee askanu Ndengleer ak jiñax ñooy njëkk gis njariñ li bopp sa bopp warut a tax Pape Bassirou ak ñu mel ne ñoom bëgg xëpp suuf ci projet bi wala di wër di gàkkal deru Pape Babacar ginnaaw coowal suuf loolee journal Grand Place ngi ñuy yëgal leneen coowal suuf lu nar a wunnee ci réew mi jile yoon ca commune bu yenn la journal bi nañu ñenn ci askano ñooy tuumal maire ba ne colline sacré ba ca yenn la bëgg a dagg def koy pàkk coronavirus bi far dagg pàkk ci dëkk bi ba dëkk fi journal Source A xam ne seeni borom sonn nañu ba nekk Sowetaas libération nañu bakkan yi coronavirus bi tëral ci réewum Sénégal dem nañu léegi ba toll ci téeméeri doomi aadama ak fanweer ak ñett professeur Moussa Seydi di leeral ci xët mu njëkk Soleil national taxawaayu fajkat yi ci feebar bi mu di prise en charge ci wàllu Covid 19 bi fa la xam leen ne ñi coronavirus bi fàtt ci réew mi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak juróom yi maanaam 85 pour cent yi dañoo yeex a yegg l'hôpital pajum coronavirus beeg artémisia gi ñu ci doon wax te ba léegi déggaatuñu ci dara l'observateur xëy na dañu wax li tax ba garab googee di artémisia jóge jóge Madagascar yegg ci réew mi te ba léegi fajoguñ ci dof du wér fu ñu ko déggee xel dem ci mbër mi di Eumeu Sène ak waa këram di écurie Taïshinga lise ko nañu otop Range Rover bi ñu sàccoon ak coow li ci am ba nit faatu ci nar naa compliqué ci ñoom Eumeu Sène ndax ñoo nga ciy dégg waxi boom doomu aadama mu di meurtre autopsie bi ñu def ci ndem si yàlla Ibrahima Touré lise ko nee nañu dafa gën a dugal ñoñi Eumeu Sène yi sa de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM li ñeel parti bi di APR ak njiit la Macky Sall mi sàkku ci commission discipline gi ak sëgg ñeel mbir yi Moustapha Cissé Lo ginnaaw yi saaga yu ne euh, moom lañu ko moomeele mu jagleel ko ñenn ci naatangoomu parti bi di saaga yu ñaaw yu soxna si jiite mouvement des femmes benn bokk yaakaar Fatick rafetluwul benn yoon soxna Thérèse fay dafa gis ne duyu yu euh, kilifa te it euh, njiitu parti bi ci boobu Macky war na ci jëli responsabilité yeneen yu sud ju syndicat la bu ay liggéeykat ci wàllu yoon dañuy ñaaw lu benn ñu ne tànqam lu gi jëwriñ ji nu bootu maître Malick Sall boole ci seen i tawat naka noonu it ñàkk doxale gi ñeel accord yi nu signé woon seen digg ak gouvernement bu Sénégal seen o tontu na maraîcher di yëngu ci wàllu mbayam noox ca leen deng ca tëngéej ginnaaw ñàkkum ndox ak perte yu mu leen di jural ñu ne këru ndox mi xam ni jamonoy ñàkkam ndox ci réew mi njaboot di ñooy yitteegu njëkk gi laata yëngu-yëngu beneen ndox mi ci kaw gi ki jafe mit li ko mën a saafara wala doon ca njëlbeenu saafara ci gis-gisu baykat yi defaree Thiès mooy euh, ñu daal di réformer tëggaat ci lu xóot lii di hydraulique rural bi di wàllu ndox mi ci kaw gi cim ndaje ca ndàngal ma la ñu daal di fësale boobu gis-gis ak xalaat démb ci dimanche ji Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ca kanam tuuti seen émission daan coronavirus ak RFM. Choisir